asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh yéen mbokki jullit yi mbokki taalibe yi te jii di samedi di benn fan ci weeru décembre 2018 waa daayira xidmatul xadim ñoo doon tëral seen juróom-benn juróom-benneelu journée sant Cheikh Massamba Diop Sam ci Masaalikul Jinaan bi ñu xëyee ci suba ginnaaw bi nga xamante ni yàlla dogal na gan yi ñëw ñu ndekkee fi ba pare eh, tàmbali nañu jàng alquran jàng nañ fi limub kaamil boo xamante ne bu takku la bañ ci jógee lañu jàng xatnu bi te ab biñ ko biñ ci jógee tamit ñu santante kenn ko ci ne wax li nga xamante ni moo la fi indi wax ka la mbooloo mi ñëpp teewlu ko bismillahi rahmani rahim wa sallallahu محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد رسول الله من سنني خير خديم المصطفى ihdina siraat almustaqim siraat allazina anamta alayhim xayri almaxdubi alayhim wala dalin alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lilmuttaqin allazina yuminuna bilxaybi wa yuqimuna alsalata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون bismillahi rahmaani rahim qul yaa ayyuha alkaafiruun laa abudu maa taabuduuna wala antum aabiduuna maa abudu wala ana aabidun maa abadtum wala antum aabiduuna maa abudu lakum diinukum waliya diin bismillahi rahmaani rahim izaa jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba bismillahi rahmaani rahim qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yuulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbil falaq min charri ma xalaq wa min charri xaasiqin iza waqab wa min charri naffasaati fil uqad wa min charri aasidin iza hasad bismillahi rahmaani rahim qul auzu bi rabbin naas malikin naas ilahin naas min charri lwaswaasil xannaas allazi yuwaswisu fi suduurin naas minal jinnati wannaas bismillahi rahmaani rahim sadaqa allahu alazim wa balaga rasuluhu nabiyu almustafa alkarim wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa mawlana min alzahidin allahumma arhamna bilqurani alkarim وانفعنا بالآيات وذكر الحكيم واجعل حولنا عجة يوم الدين اللهم انفعنا بما ضربت فيه من الآيات وشكرنا بما ضربت فيه من المعزولات وكفر بتلاوته عنا سيئات إنك مجيب الدهوات اللهم تقبل منا غدم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو سيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته taxajulin hinda tilawatihi aw kasalin aw sayxin lidaani waquufin bi xayri waqfin aw idgaamin bi xayri idgaamin isxaarin bi xayri bayaanin faktubuhu minna ala tamaami walkamaal walmuazzabi min fil alaan warsuqna fadla man gara'uhu muaddiyan aqahu ma al ahdaai walqalbi wallisaan وهب لنا به الغير والسهادة والبزارة والأمان ولا تختم لنا بالجر والضلالة والطغيان ونبئنا قبل المنايا من نوم القفلة والكسلان وأمنا من عذاب القبر ومن شؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوعنا يوم البحث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويزر حزابنا وسقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على زرات وأسنك وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان اللهم اجعل القرآن ربيع اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحساننا وسهاب غمومنا وغائدنا وزائقنا إلى جنة النعيم allahuma jaalhu anisana fi lizzati wa musaibana fi lizzati wa musahibana fi zulumati wa dalilana fi layrati wa munxisana fi lfitnati wa azimna bihi min cheikhi wal awaai wa kaydi alaadai ya rahmanu ya rahim allahuma aqtim bi zahadati ajalana wa xaqiq bi shiyadati amalana waqrum bil aafiyati xuduwana wa aadalana wajhal ila rahmatika masirana wa maalana wasbub sijala afwika ala zunubina wa munna alayna bi sutri uyubina allahuma jahal taqawaka zaadana wa shaqata bika zuhrana wa atiqaadana wa amin min aljuuhi walxawfi bilaadana wa soyra bilaadi almuslimina ya rab alalamin allahuma baliq sawaaba ma qara'naa wa nuura ma talawnaa li ruuhi sayidina wa nabina muhammad alayhi salaatu wassalaam wa li arwaahi aabaihi wa ummahaatihi wa aswaajihi wa surriyaatihi wa asxaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa li arwaahi cheikh Massamba Diop Baye Serigne Diop Serigne Massamba Diop allahuma balliq sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu li ruuxi sayidina wa nabiyina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa li arwaahi abaa'ihi wa ummahaatihi wa aswaajihi wa surriyaatihi wa asxaabihi ridwaanullahi taala alayhim ajmain wa li arwaahi cheikh Massamba Diop Samb boobu bay sëriñ ma njaboot cheikh Massamba Diop Samb Diop allahuma balliq sawaaba ma qara'naahu wa nuura ma talawnaahu li ruuxi sayidina wa nabiyina muhammad alayhi salaatu wasalaam wa li arwaahi abaa'ihi wa ummahaatihi wa aswaajihi wa zurriyatihi wa ashaabihi ridwanullahi taala alayhim ajmain wa li arwahi abaina wa ummahatina wa mashayikhina wa li arwahi jamii almuslimina walsalatu walsalaamu ala sayidina wa maulana muhammad xatimi nabiina wa imami almursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalina walhamdulillahi rabbil alamin alif laam miim inama sabil wala tujaadilu allahu min kulli karimin akramu man xaadul aslim lahu kulla kaan imaani wala simili sani waajihu bi sukri bi laa kufraani tuk fay saabu huma an niraani barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa barke borom Tuubaa yàlla na suñu borom nangu nangu deful ko ngeen jëful jëf kon nag lii nga xam am baree bari tubaarkalla am na nu demee yow nga sant ma Massamba Diop xam ne bésam bi ñu koy defal maanaam defal ko barab bu boppam rek moo ci yelloo nga léegi ko nii muy kër sëñ Massamba Diop Sam mu yaatoo nii aajo na seere kon sëñ Xaadim lay jëwriñ ji jàppal ni lii ñuy seere ñii ñu ko war a seere muy sëti Cheikh Massamba Diop Sam kenn raxu leen ci ñoo jàng kaamil ba mu àgg ñu ngi leen sant baax ci seen bisum sun bisum maam bii nga xam ni nun ñëpp ko du ma ni seen sun gisu bisum maam bii nga xam ne Cheikh Massamba Diop Sam nun dong yeeg yéen sët yeeg doom yeeg ñëpp macha allah nit gam tànn woon taxawe ngeen ko ba xam ngeen li leen war kenn du leen fekk ci lu leen warul kon na ngeen xam ne seen Massamba Diop jàkkaarloo naa lépp yàlla na boole pay gi nga xam ne si képp nam liggéey mu sellam booy mu defoon ku ko liggéeyal moom da nga añ bismillaahi rahmaani rahiim wa sallallahu muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم تسليما محمد رسول الله من سنني خير خديم المصطفى فإنني أخديم بما استفى من سنني خير خديم المستوى فإنني أخديم بما استفى إليك خدمتي بدا فخره دلال والإدلال ينخاد لي منه بالحلال مدعته قبل دال برولي مدن وناها مثلي كل ولي مدعته مدحن لدى ما ينباه ما عيوبي وكفاني ذنبا مدعت عند أناس قلوى مدن كفاني الإداء والبلوى مني إلي خدمة قد لازمت روضة إلى الخيام عزمت radiyaani sibto jilaani alay ridwaanul mubidul jaani radiyaani sibto abul hasan alay ridwaanu yuxallidul hasan radiyaani sibto tijaani alay ridwaanul mubidul jaani radiya عني سبتو تيجاني علي ردوان المبيد الجاني ردياني خلفاء الأربعة خسردا مخربين المتبع من لم يكن أني يردى فالكريم ردي عني يردا ليس يريم جزى الإله مستا خير الجزاء كما تقبل ووهدا أنجزا صلاة من كرمه يلخاني على الذي دون المغال خاني daaru am ngeen ngëneel daaru saam am ngeen ngëneel ku sopp sëriñ Masamba Diop saam ku sopp sëriñ Masamba Diop saam tey sëriñ Moodu Masamba ngëneelu yàlla la na ñëpp jóg nu màggal sëriñ Masamba Jóob Saam bàyyi sëriñ Moodu Masamba bàyyi sëriñ Basiiru Jóob ana soppey sëriñ Moodu Masamba sëriñ Masamba Jóob Saam Bamba ko noon demal Daaru Saam nekk ma ma ñëw Seex Masamba dem Daaru Saam Seex Bamba ñëw xéewal yi baawaan ku jant bi man Seex Masamba Jóob saa mooma yéem lu jant bi tiim war sant borom daaru saam def leen nii nu màggal Sëriñ Masamba Jóob saam ku jant bi tiim amajra la aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mu mel ne ñi ngi doore rek suñu nuyoo ci njabootuk Cheikh Mouhamadou Massamba Diop ki nga xam ni ñoom ñooy fàttaliku seen maam leen nuyu ñoom ñëpp di ko jaarale ci jëmm ju baax joo xam ne suñu wëlëre la lool muy Serigne Fallilou Diop di jaarale suñu nuyoo ci xalifab sëriñ Massamba Diop muy sëñ Abdourahim Diop ñuy sant yàlla ci fekke bisam bii bu baax lii nag dafa bokk ci li nga xam ne fàttali ko dundug mag ña la ndax lu yàgg dañu koy fàtte bu ñu dee fàttaliku mawdi rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam di fàttaliku risaale yaa nga xam ne moom la ko yàlla yónni woon ak jikkoom yu baax ya ngir ñu yeesal suñu pas-pas rekk a tax man caa sukkandiku ba rafetal suñu dund tegu ci siraatal mustaqim ba suñu àddina baax ak sunu alaxira waaye bu ñuy fàttaliku Serigne Touba Xaadimu Rasul di fàttaliku mag ñi njëkk ànd ak moom seen dund ga ak seen baax ga dara lañu ci dul mën a jëli lu dul sët yi nga xam ni ay sët sëtaat sax a ngi fi ak ñi aju ci ñoom te yaakaar leen ci seen addina ak seen alaxira mën a dëgëral seen pas-pas ci seen dundu ga ba seen léppi addina mën a jàkk ak seen lépp alaxira bu ko defee ma Massamba Diop Sam bu ñu naree waxtaan ci moom dañ ko dul mën a boole ak dara xanaa li ci mat a xamle rek mooy ñu xam ne ni ku teel a ànd ak Serigne Touba Xaadimu Rasul ndax teel a ànd. mënta weesu mbokkum daara woon daaraam moom la woon mbokkum daara mooy koo bokkal ànd ngeen bokk daara di jàng di sàkku xam-xam ci daara yi Maam Mor Anta Sali loolu la bokkoon ak sëñ bi kon loolu ak tolloo la ak moroomoo la ci saahir waaye nag sëñ Tuubaa da koo rawoon ci baatin ndax sëriñ bi day koo xam ni day boroom jagle goo xam ni ki dem ba wax ni yàlla wuyu na ma juróom-ñaar ki junni at te bindul dara dara amul ajaabani rahmaanu xablal xalqi sab ina alfa sannatin bil xaqe alastu bi rabbikum xaaloo ballee ba ko yàlla waxee ru rekk amoon jëmmu amul yonent yàlla Muhammad jëkkoon a wax ballee Sëriñ Tuubaa ñu laaj ko ni ko waaw ndax fekk nga bis ba mu ni déedéet damaa ne woon feneen ñi di ma fa liggéey loo leneen bi ma ñëwee yonent bi ni ma yàlla woote na fi sa gannaaw naa wuyu nee na ma ne ko bi nga nee bàllee lu la yonent bi wax lu la yàlla wax mu ne ma joxoñ na ma ruy ni ma tànn ci li nga bëgg tànn naa ba noppi yow it demal tànn li nga bëgg sëñ Tuubaa ne keroog bi ma jógee dama faa bàyyi la fa yonent bi bàyyi dugg ca lam tànnoon di ca tànnaat nee na rasulullaay ni ma tànn naa loolu ba noppi nee na yàlla ni ko bàyyi ko mu tànn ku jébbalu ku ne keroog la la sëriñ Tuubaa tànn la yonent bi tànnoon nag lépp ay jullit lañuy ñuy doon moo tax bala ngaa doon murit da nekk jullit ba noppi kon seen sëriñ boobu di boroom gis gu sore am yàqiinul xal bi sunu sëriñ boobu di Cheikh Massamba Diop Sam bu bekkeek sëriñ Touba Daara te sëriñ bi yore melokaan woowu indaale loolu yi jamono mu am ak ràññee ba teel koo def kilifa teel a def kilifa gi mooy mamar jaara mi mu bokkaloon mamar ant sëri tey leen daan dooñ tey dooñ sëriñ bi ndax booba xamagul li ne ci sëriñ bi moom mii magam waaye ma Massamba Diop Sam xam na li ne ci sëriñ bi ba tax mu ne ko yow de dootoo bay suñu la dooñatee danaa bay saw dooñ bayaale sama dooñ loolee ba mu ko waxee sëriñ bi mbokki daara yëpp dañ ko di doo ko man wala boo ko jéemee ba nar koo def ne la wóor ni duñu la nekk ci añ saa yu añ jotee danañu añ waaye Cheikh Massamba Diop Sam ni kon baax na jaral na ko ba am na bis boo xam ne bayaale dooñu sëriñ tuubaa tax na dañoo añ wacc ko keroog amit dafa dine moom sëñ Massamba Diop Sam Serigne Touba ni ko Massamba Diop Sam dañoo añ wacc la mu ne ko waaw mu ne ko ma sàmba Diop Samb bu ëllëgee yowmal xiyaam añ ya yàlla séddale dana ko jox yenent bi te dana ko tegaat ci sama loxo bi te bu keroogee danaa la fay sa añ bii ba ñépp xam ne fay naa la ko kon bu ngeen ko yaakaaree añ boobee àddina jëpp xaj na ci mu doonoon boroom dund koo xam ni lii xam-xam sariha ak xaqiqa teetoon na ko wattu woon na ko waaye genn wàllu kajoor toppoon na ko keroog ba nga xamante ni doon gi Sëriñ Tuubaa doon yonent bi ñëw na ci moom te yonent bi feeñu ko xamal ko ni ko rabbi ashaabaka bil himmi wala turabbi bi dars faqat na nga yar sa mbindeef yi ci yitte te bañ a yem ci jàngale te xamal mbindeef yi ni leen jaayante ga saxaaba yi jaayante woon ak man ca taatu garab ga yaa koy yeesal laqad radiyallaahu anil mu'miniina iz yubaayi'uunaka tahta shajara na nga xamal mbindeef yi ni leen yow wéeruwaay nga boo xam ni ku wéeru ci sa ganaaw ku ne mucc na ci nax-naxi àddina ak nax-naxi alaxira mu daal di wax ne li kulli man taxalaxa bi na jaa min kadri duniyaaw fi yow mën a jaa woote jaayante ga keroog sëriñ Adama Gueye jëkk a jaayante waaye sëriñ Masamba Diop sama ca topp jaayante di jaa di ko jaayante ci ñaareel sëñ Mouhamadou Gueye jamooy topp ca sëñ Daaru Assane Ndiaye ca juróom-benneelu fan bala jaayante te sëñ Masamba Diop sama tax mu jaayante sëñ ibrahima saar njaañ topp ca borom ca sàkk yaa xili ibrahima mawlaaka xayral ci sawal mu naa daaray ka awlaaka amoon na ñaari gëléem ñoo daan sëf addiye di jóge kajoor di yóbbul sëriñ tubaa bu ñu wañu koo dajoo dajeeg ñaari gëléem dundam gépp moom sëñ Masamba Jóob Sam ci la ko jeexal ba sëriñ tubaa woolu ko mu ñëw mu woo maam cerno ibra faati ñu bokk dugg ci nekk mu ne ko cerno mu ne ko mbakke mu ne ko samba Jóob Sam mu ne ko mbakke mu ne ko ndaxam nun ñett ñii am na ku ci sama borom soxla keroog sëñ Massamba Diop Samb dafa ni ko kon ceer Ceerno bu mu doon yow te ba muy sëriñ tubaa nay man mii ba ko sëñ tubaa waxee ñetti yoon sëñ Massamba Diop wax ko loolee sëñ Touba dafa ko ni wax nga dëgg Massamba Diop Samb lool yi nga wax dëppoo na ak li sama borom dogal kaay dellu Daaru Samb jox ko walis jox ca def ca càngaay def ca cuuraaye lebel li ñu war a waajale ab néew ni ko boo bu mbir mi xewee nañ la denc foofee ca Kajoor ndax yow Massamba Diop Samb bokk nga ci ñi nga xam ne foo nekk mënal fa bopp dara mu ñëw bis ba dellusi si tawat nuyu ko mu génn àddina ci li ñu jàpp ba di ko yëgal si Serigne Touba bi ñu ñëwee wax ko Serigne Touba dafa ne génnagul àddina ndax ruuf ga tàggoogu ba yebal maam Thierno ak ay ndaw ni leen ngeen dem taxaw njabootu sama Samba Diop Samb ga ndax bisam sore waxtoon soreetul ba ñoo ñu koy loñu dajeeg ñeneen ñi di leen gàttandu ni leen daa xamoon waaye ximmiliku na maam Thierno ñëw fa ba bis ba daataan dellu si mu génn àddina keroog bi ñu ko waajalee ba noppi ba di ko denc noor bu ni kundum la waaye ba ñu koy gasal xabroom fa penkub jàkkaam ja noor bu ni kundum mbooloo bi Samba Diop Sam lañu yaakaar waay sëñ Diop Seydina Mohamed Ndiol ma kaas yàlla Mohamed Seydina Mohamed ci ba Daaru Sam sëñ ma Samba Diop Sam lañu yaakaar waay sëñ Diop Seydina Mohamed الانتهاء وبك فاز الانتهاء ولم يكن بمصرك يلمك لم يقل إن المؤمنين قلبك يوم خير المسلمين معصومة لسرك يلمك يقودني لمريك مع انتفاع لقدرك فصيبي بذل المريك دام كل تقي jol makka wajamtu kil yawma bima yuqdimu liqatan ila siwa isab bima ya min khayri qad jol makka anti salatul kiram ma mana ma ibra لما سكر ربنا الكريم سنوك سرنا إنك نارا يروم إن الذي لم يفرق لما كرمت بسامن وبكار تنيتيم قربك من رب ساتر بكير مختلفنا لما بالله كن فيكون تلقت من أن يكون لكن نسامي ساركون يوم روح مالك يوم جاري عليك ابن كلاب عليك ابن القليم وزكى ابن بارك فيك سجرا وتملكنا في الدلال بما يخالد الألال لغير ممزك دعوتك اللهم يا مجيب بجاه من بجاه تجيبه يا الله يا رحمن يا رحيم يا هل بخريب ومجيب زميا هب لي أبي وأبي سرمدا مقبرة ورحمة بأحمدا هد الوقوق والذنوب عنهما بجاه العظيم والدر وما سق الصلاة للنبي بالسلام في أهلي ولو معك يا سلام نقز حيفتي ما من كل ما يدر ديقا ومه وسلما أجب بجاه المرتبى وسليا علي فضلي من واشكر كليا أجب بجاه المرتبى وسليا علي فضلي من واشكر كليا